salaam gars yi nuyu nañ leen ziar leen bu baax a baax wéy leen di abonné te di activer cloche bi ndax vidéo bu ñu dugal di ngeen bokk ñu koy jëkk gis wéy leen di like di commenter di partager loolu ngeen ñu mën a jàppale ñu ñëw ci euh, match Sénégal Côte d'Ivoire légende yi ñu ngi cee àddu joueurs yi ñu ngi koy àddu euh, ku si mel ne Riyad Mahrez mais en tout cas lu ci manti am Sénégal moom mooy favori ci match bi Sénégal euh, war naa daje ak adversaire bu tàng bu ci mel ne Côte d'Ivoire c'est un adversaire de taille pour le Sénégal un match de mat match boo xamante ne Sénégal war naa def attention yi ci bëree bëri mais bala ñu continuer vidéo bi képp koo xam nga am jafe-jafe sa wala àdduna sa bopp lëndëm euh, nga am jafe-jafe sa néegu say nga am problème mu rab jàpp la wala ngay lijjanti ay kayit mu tëw muy visa wala beneen kayit muy muy ngay lijjanti ay euh, certificat BFM BAC loo ci mënte am rek ci jafe-jafe yooyu woowal Serigne Mouhamed Diakhaté 78 201 82 44. boko way inshallah incha sa aajo dina faju Sénégal Côte d'Ivoire match bi gars il faut ñu wax ci te gars il faut il faut il faut il faut gars yi nekk ci gannaaw lion yi parce que football du 10 11 euh, euh, acteurs yi nekk ci terrain bi da koy def mais 18 huit millions sénégalais yépp dañu wara taxaw ci gannaaw lion yi xam ñu xam ne kat suñu peuple ñu suñu gannaaw donc lolu noonu il faut ñu def ko ci marché bi il va falloir que supporters yi dem stade supporter bu baax baax il va falloir que fédération bi euh jël moy war ci marché bi pour ñu mën ko gagner parce que bir Côte d'Ivoire